waaw salaamaaleykum donc man maa ngi tudd Alassane Gueye di comédien euh, metteur en scène scénariste aussi waaw non parce que témoignage bi ma mën a def ci Ousmane mooy kii moom presque mën naa ne ay mag raq lañu quoi donc lépp lañu quoi parce que moom ñooy fanaandoo ñooy yeewoondoo ñooy demandoo fu ne donc lu nekk ci moom mu ngi ci man lu nekk ci man mu ngi ci mu ngi ci moom. et en plus déjà maa moom ñoo commencé ndoo théâtre comme ni mu ko waxee moom parcours bi mu jaar man parcours boobu laa démarré mais suñu borom muy séddale suñu borom mooy séddale moo naan kii fii laa ko soxlaa kii fee laa ko soxlaa loolu la et en plus donc mu nekk nit koo xam ne aussi tamit ça lu gëm ku gëm lu muy def la parce que ça presque dix ans man maay mettre en scène am te boo gisee man la ñu ñooy defandoo lépp ñooy ñooy yarandoo ñoo def lépp donc mu nekk ku nangu aussi ku nangu koo xam ne ni ñu diriger ko ki nga xam ne moom nga yarandool moom nga màggandool xam nga yéen defandoo lépp yéen a duggandoo ci théâtre ñu dem ba benn moment kooku di la diriger naa la defal lii xam naan nga lii nga war a def wala lii wala laa nga accepté ko kon man pour man loolu nit ku noble aussi moo ko mën a def. aussi mu nekk nit ku gëm liggéeyam gëm li muy def déjà bu ñu bu ñuy def dara sax bu xawee am lu ndaw lu ci kii dana no alu est-ce que duñ ko defee nii noo alu est-ce que nit ñi li lañ gën a sa lañ gën a soxla ci ñun donc muy moom muy kombe muy keneen ak keneen. muy groupe yi ma group yi ma nekkal ñëpp ay Soda Diagne ay Ndayawa muy mag ñeeg ñëpp waaw non même groupe la parce que troupe la donc troupe la quoi troupe troupe ñu ngi koy wax troupe royukaay Soda Diagne ay ñëpp ci lañ bokk ah Kombe Mañuk Diop Fall ñoom ñëpp te man maa leen donc ak âge beeg yooyu noonu yëpp xooluñu ci dara donc moom aussi tamit mu nekk nit koo xam ne aussi nit ko respecté ay waajuram la waaw loolu moom dama bëgg Sénégalais yi xam ko kii. ak magam baabaat doog ñoom yeneen ñëpp saa à lu ñu am seen yaay moon ko gënal parce man ci kër ga laa nekk xam naa li may wax donc may ñaan yàlla aussi ku nekk loo yéene lu ñu ko yéene rek mu dem mu ñu am ko quoi waaw. non je vois que ni euh, muy moom muy yeneen gaa yëpp man je sais que ni dañuy percer parce que lu tax mooy li ñuy def gëm nañ ko déjà am nañ ci ambition ba pare gëm nañ ko xam nañu aussi fan lañ bëgg dem li muy joué nii li muy li muy interprété nii li personnage la rek muy melas beeg damu baaraam beeg affaire yooyu mais am na leneen loo xam ne ni mu ngi ko yor loo xam ne ni bu damul baaraam tey xam nga joueur handicapé Sénégalais dañ koy gën a bëgg xam naa li may wax te ndax ça fait dix ans on travaille ensemble donc man je dis que ni Sénégalais gisaguñ dara peut-être phase comique ci phase comique bi la ñu gisaguñ ci lañ nekk duñ ko teel a dagg. mais bis bu ñu ñëwee ci beneen phase sénégalais dañu xam ne ne ñun on a travaillé pendant longtemps donc nekk nañu suñu ruq travaillé pendant dix ans donc mu nekk groupe bu avenir man je sais que on va percer incha allah